am solo rek ba sénégalais war ko xam mooy man je pense que li ñu soxla actuellement du ñëw fii di pleurnicher quoi wala di xool président Sonko ndax jóg na ndax mi ngi non non non li ñu soxla mooy soxna Bator jóge ci pouvoir bi te loolu mooy combat bi quoi a n'a pas nekk fi di xool leneen lu dul fexe continuer combat bi quoi parce que à chaque fois bu ñu demee ba war a mën a régler problème mu Sénégal rek après dañuy mujj bàyyiwaat Macky Sall pouvoir boo xamante ni si ñun ñi nga xam ñun ñoo nekk ñoo ñoo exposé wu suñu kaw lay jëmaat plus de Ousmane Sarr a ngi nii tey presque boo seetee li ñu defeere ci ay jeunes mat na 175 jeunes wala 140 jeunes yoo xam ne dañu leen defeere arrestation pour lan yii yëpp la fois passée si vous vous bi ñuy dem di voter loi pour criminaliser manifestation euh, non autorisée criminaliser ay kii euh, euh, place de l'Assemblée nationale ñu ñoo fa demoon taxaw si buntu assemblée nationale bi on était quatre les gens ñoom comprendre ñu woon li ñu doon xeex ñu dóor ñu si gaañ ñu yóbbu ñu camp Abdou Diassé nit ñi comprendre ñu mais actuellement je pense que jot na pour ñu xam ni xeex dañ koy yeggali booy bëri mbër mu mel ni Balla Gaye boo demee ba ba mu def trois trois appui sama waaye da da li ngay def te ci loolu lañ nekk na Sénégalais yi comprendre xeex amul taxaw dangay xeex mu mat kenn mënul comprendre lii ban genre xeex la man damay wax ñun ñëpp ñu ngi si terrain bi di xeex ñu ngi xeex quoi c'est pas du ñëpp ay affiché wu ci écran yi pour xeex mais nag xeex day mat quoi day egg may waxaat encore ne ñun ñu ngi ko seqal ce sont des voyous la différence entre les les forces de l'ordre là ak Ousmane Sonko xam nga lan la ñoom seen salaire moo tax ñu def li ñuy def parce que xam ne ordre yi ñu leen jox dafa du ordre yu légitime c'est du n'importe ñu koy respecté lu tax ñu koy respecté parce que dañu bañ ko leen dàq lu tax ñu bañ ko leen dàq parce que dañuy lijjanti dépp weer bu dee lu ñu jox seen njaboot ñu ne loolu noonu tax na président Ousmane Sonko moom am na njaboot te dafa xeexal Sénégal ba ñu rajee ko dàq ko mu bàyyi njabootam bàyyi lépp sacrifié wu pour Sénégal ñoom les les le les agents les policiers là la vérité koi agent bi brigade d'intervention policière yow takk nga kagul sol casque yor nga arme automatique def ci ba reyal sol ay kagul taxaw ci te on t'a entraîné des années pour lan pour nga attaqué benn waay yoo xamante ne nii xaftaan la sol bu weex yorul dara dul portable ci poosam yow loolu mooy sa nguur quoi di jaay karaté di naaw di jaay loolu loolu loolu lan la quoi loolu loolu ban image la loolu ça veut dire quoi parce que il faut ngeen comprendre lan moo leen utile ñoom lan moo leen ñoom ak ñi respecté institution yi bu fekkee ni respecté institution yi lan moo la utile xale bi taxaw ci mbedd bi di prostitué wu pour lu mu yóbbu këram parce que lu ñu yóbbu seen kër moo tax ñuy def loolu te ñun bàyyi nañ li ñu yóbbu suñu kër ndax Sénégal jot na ñoom aussi ñu bàyyi li ñu yóbbu seen kër ndax Sénégal koo cooxal da nga laan man dañ may dàq dañ may nangam dañ may nangam mais Sonko dañ ko dàq et tant d'autres ñun dañuy emprisonné dañuy dóor dañuy def lu nekk ñoom nañ def loolu ndax Sénégal kan moo respecté institution yi nañ wante dëgg lan la leen Sénégal di jaral ñoom tey lan la leen Sénégal di jaral tey li dal président Sonko nii mais attends mais ana Mame Mbaye Niang yow sàcc nga nga sàcc àllu Sénégal waxtuñ dara ngay porte plainte ay nit en plus ñu wax encore yow ñu lay dooleel di naxasal ñi nga xamante ñooy xeexal Sénégal léegi nag li xew démb ñëpp gis nañ ko je pense que bu doyul indi na ay grenade indi ay bien armé dem na Turquie ut na nangam nangam après lan la qu'est-ce qui s'est passé hier ñoom fan lañ nekkoon kenn mënu rester peuple le peuple est souverain donc léegi benn affaire rek moo des mooy pour booy comprendre ko quoi am na wax yoo xamante ni kenn du leen ko wax wax ju ko moom wax ju yeeg dof moo ko moom xeex day mat xeex day mat may wax nag képp koo xam ne yaa ngi Sénégal nga xam ne li Macky Sall du dëgg kuy bëri mbër mu mel ni Balla gis ku ko mën a daan da nga ko boobu mu amul loo def mën nga am ndomb boo ko jox mu takk te kooku Ousmane Sonko la lu ci nit am na nga jug taxaw ñu ànd ak président Ousmane Sonko ñu jële fi Macky Sall ci fulla loolu mooy fulla quoi loolu daal fii nii waaw comme ñun d'ailleurs sax fii la ñu fanaan waaw fii la fanaan ah, ban information la ñu mën a jotagum ci Ousmane Sonko. bon pour le moment constat bi mooy Ousmane Sonko am ko dal ku xam Sonko rawatina ñu ko jege xam ni du tricheur soo ko ndaroon tricher loolu sax mën na la déedéet man doxuma ci yooyu Sonko su tëddee rek am na lu ko dal c'est un homme honnête loolu la xam ci moom su demee ba tëdd ba fanaan fii ba léegi mënul génn c'est parce que la situation est critique te lii nag kenn yóbbeewu ko ko ku dul Macky Sall. on est yow jot ngeen koy gis wala. non kenn mënu ko gis. Hmm. kenn mënu ko gis. ngeen dégg di nu mel moo ngi wax moo gis. ba léegi amuñu benn information. Hmm. waaw fii la ñu fanaan on a passé la nuit ici amuñu benn information ba léegi. Hmm. léegi ngeen fas yéene dañuy toog xaar rek peut-être après jumaa ji médecin yi dinañ ñu wax lu leer. parce que ñun depuis démb ba léegi ñu ngi fi toog mais amuñu dara lu leer. Mhm. ok merci jërëjëf. Saloum comme moi et un ami voilà mais il se porte bien quand Mais pour les autres, je crois que les autres leaders de l'opposition, je crois que l'organisation et le combat doivent continuer. Il est malade, mais il faut qu'on prenne le relais et qu'on continue à faire le combat parce qu'il n'est pas question de lâcher prise. Il faut que Macky Sall sache que le Sénégal ne lui appartient pas et que son corps doit être candidat aux prochaines élections présidentielles. Et ça, c'est pas négociable. lui, il ne doit pas participer. C'est lui qui a fait la Constitution. Et il a dit dans la Constitution que personne ne peut faire plus de deux mandats. Deux mandats successifs, on ne peut pas aller au-delà. Et lui-même, il l'a répété partout, Major et tous les ténors, à l'époque de son parti, l'ont euh, répété. Il n'est pas question qu'on revienne là-dessus. Macky Sall doit savoir que les Sénégalais, dans leur immense majorité, ne peuvent pas admettre qu'il se représente, ne peuvent pas accepter qu'il soit président au-delà de février 2024. Ce n'est pas possible. On en a assez. Et avec ça, il n'y a plus d'espoir. Les gosses que nous avons vus lorsqu'on a organisé le meeting, des gosses sont venus me voir. Ils m'ont dit, Doyen Goumoule, regarde-nous. Mais on est des morts vivants. Ils n'ont pas d'espoir. Leur seul espoir, c'est Sonko. Et ils n'accepteront pas que Sonko soit sacrifié. Ça, il faut que Macky Sall et son équipe le chasse. Il peut sortir des blindés, tout ce qu'il veut, des canons, tout. Les gens ne le laisseront pas faire. Cependant, nous ne sommes pas pour la violence. Ah Parce que la violence n'arrange personne. Et que les Sénégalais aussi ne veulent pas la violence. Parce que la plupart des Sénégalais, c'est des gens qui vivent du jour au jour. quand le pays est bloqué 24 heures, 24 heures seulement de temps, il souffre. Donc personne n'aime la violence. Mais cependant, Macky Sall est en train d'imposer la violence à euh, gis ne suñu frère yi ñoom Lamine Niass ak ñoom Mame Pathé donc dañ leen a jàpp ak Waly Bodian ñëpp xam ñu ko euh, actuellement sànq bi ñu jógee fi nga xam ne moom mooy tribunal 146 personnes yoo xamante ni nii indi nañ leen tribunal 146 personnes. te si biir 146 personnes yooyu desoon na 50 personnes yoo xam ne ñi ngi woon centrale parce que xajuñu tribunal léegi nag ñoom ñëpp la ñu def leen retour de parc ba lundi ñu nekk foofu noonu muy 200 yu manqué 4 personnes te ñi ngi jot a pour les 100 la. léegi nag fan la ñu nar a jëmee seen yooyu fan la ñu nar a jëmee ndaw yooyu te liñ leen jàppee mooy lan ñenn ñi dañuy dañuy dox si mbedd ñu jàpp leen ñenn ñi dañu ñëw pour défendre seen leader bu ànd ak moom dem tribunal ñu jàpp leen. léegi lan moo tax ñi nga xam ne dañu àndoon ak ñaa Mbaye kenn jàpp leen léegi na kumba am ndey boobu ak kumba am ndey bi. bi am Sénégal loolu lañ la ñu war a xeex te dañu ne sénès bi nañu jug ñu montali combat bi comme ni ko Karim waxee fekk Macky Sall démissionné wul jóge ci pouvoir bi na ñu jug ñu xeex jàkkaarloo nguuru Macky Sall pour mu dégager parce que nag munoo nekk ci réew mi yor armée yor lépp ba pare di jaay doole nit ñi ku wax nga jàpp ko tëj ba pare ne kenn du fi manifester na sénès bi génn ñu manifester par la force pour que Macky Sall dégage loolu la amoon na wax politique de Pastef à waaw lu tax ma ñëw fi tey di wax nii c'est parce que discours bu jeune bi tenir c'est une c'est un discours de vérité te c'est un discours que je partage ah parce que Yewwi Askan Wi bëri na ay leader Pastef bëri na ay leader tey Ousmane Sonko li ko dal nii démb c'est parce que il n'a pas été assisté dañu ko seetaan te mennum Guy Marius Sagna moom moo jog taxaw njëkkante gars yi pour ça pour pour pour sécurité Ousmane Sonko. tey jii nii mu ngi fii nii tëdd te ñi ko def lii ñoom ñu ngi yaataa ñu be di kontaan di def lu ñu bëgg def ils sont libres ils vaquent à leurs préoccupations tey jii nii si les jeunes son la ñun suñu bakkan yi gënul bakkanu jeunes yi soyons responsables du ñu jiital fii ay nit nag ci Pastef bi bu ñu heure xëccoo poste ay dem élection législative élection leel jote ngeen nekk di xëccoo di rayante mais bu fekkee ne bakkanu Ousmane Sonko moo nekk en jeu ngeen toog di xoole sortez de vos maisons. nii coordonnateur national des jeunes de la GPS nationale mu ngi fii nii. ak tamit vice coordonnateur mu ngi nii te keroog Ousmane Sonko gars yi bu ñu ko dugalee si tunnel bi gis nañu coup bu mu bu mu am si bopp bi ba léegi marque bi muy foofu man damay woote leader yi yëpp képp ku naan moom leader la na génn les discours là ay je ne sais pas conférence des leaders de de Pastef nous on en a marre de ça nañu leen gis si terrain bi nañu leen gis si terrain bi on vous respecte beaucoup donc rendez-nous aussi ce respect là nañuy wàcc. nañu wàcc si terrain bi mais ay man leader laa tey ban parent di gis xeex bu amee nii mu jiital seen doomam yi mu ne leen dem leen xeeji moom mu tëj kër ga nga xam ne ni que pas boobu il est ne il n'est responsable na leader yi gën a ñuy woo jeunes yi comme Guy Marius Sagna nu mu ko defee comme Guy mari Sagna ñu ko defee ñun loolu la ñu bëgg mais bëgguñu ay leader yoo xam ne ni dañuy toog seen gàlle ñu naan non non ñun ay porteurs la ñu ñii nii ñu ngi nii ñoo xam ne le coordonnateur national des jeunes de Pastef génn nañu ñoom ñëpp nañu génn nañu wàcc si terrain bi sinon du ñu la dégluwaat Pastef ñëpp ñoo muus Pastef jeune yi conscient ñoo fa nekk kenn du xootal kenn ou bien kenn important kenn déedéet ñun ñëpp ñoo yem génn leen si terrain bi génn leen si terrain bi ñu xeex xeex bi xeex bi nekkutul encore mu ngi nii te de fii nii koo xam ne ni na xeex na ak gars yi ba gars ko ëpp doole Ousmane Sonko bi ñuy loo xam ne moom xeex na pourquoi pas ñun ñu xeex pourquoi pas yéen ngeen xeex bëggatuñu encore benn leader boo xam ne ki bokkul suñu xeex ba beneen bés mu jëlaat encore micro di naan non non conférence dañ koy saaga dañ koy saaga foofu la bu a yem. véhiculé dañ la jox xaalis nice quoi xam nga on sait ce qui se passe fii lañ dëkk quoi. am na Suzanne Camara dafa yëkkati ay kàddu yu doy waar dem ci guddi dégg nga ko ou pas wala ma rappelé la ko. <laughs> gis nga ñoom ñëpp ah, xoolal ñoom ñëpp ci benn loo laa la ñoom ñëpp ci benn loo laa la je pense que xam nga ñoom ñëpp saa yi xoolal wóor na yàlla mais dafa xaw a doy waar maanaam tey boo ko waxoon tey wala keneen ci opposition bi mën nañu wax ne du fanaan këram mais moom laa lay expliquer saa yi li Seydina Ousmane Sonko di wax chaque fois mhm. Sénégal amul justice man la koy tout à l'heure Sénégal amul justice fii lu way neex def la Sénégal dafa amati justice dafa am am na ci zone Camara mi ngi nii këram di mi ngi vaquer comme assez occupation comprendre nga bon suñu député sart boobu ñu mu tudd borom euh, borom phobie yi ñu mu tudd waaw borom phobie yi ki masal yi mi ngi noonu mi ngi ni doxee soxlaam ak ñeneen ak ñeneen saa waay mën naa la jox exemple yu lu jeex mën naa la jox exemple yu lu jeex mais Seydina Ousmane Tanor un simple citoyen sénégalais ñu woo ko tribunal mu war a wuyu ñu koy tànnal yoon bu muy jaar loolu fu mu am may so wala la ñuy jàpp bu yoboo ñu préparé ñun ñëpp dinañu ñu préparé ñu ñu ñëpp ñu jàpp ñu ñëpp amul problème nekk ci jël bi xoolal gënuñu ñu wóor na yàlla ñu nekk ci jël bi gënuñu ñu ñu dee itam gënuñu ñun gënuñu leen ah, ci wàllu brutalité image yi bii ñëwaat ci mais sama xol bi day jax takk sama xol bi day jax tàkk wóor na yàlla boo man man man bon mënu ma concevoir xala nit nit bi ñuy néewal doole quoi asamak Seydina Ousmane mi nga xam ne suñu yaakaaru tey ak ëllëg ci wàllum politique ci avenir du Sénégal wóor na yàlla ah mais c'est extraordinaire Ousmane Sonko sama père de famille mérité wul li muy dund nii mérité wu ko Mame Mbaye Niang mi ngi vaqué ASC bi xoolal démb dama ko gis mu def cortège am bu nice dem ba dinañ ko ak itam di créer ah. victoire ah victoire lay ah, ah non mais c'est extraordinaire mais nag Sénégal xam nga dafa bëri ñu ñàkk jom Sénégal wóor na yàlla dëkk la boo xamante ne ñu ñàkk jom ñoo fi ëpp gis nga xoola Firawuna Firawuna bu ñëwaatoon tey ñi ànd ak Macky Sall sañ nga ñu ànd ak moom wóor na yàlla d'accord taxawaayu ndaw yi lan la a doon exact pour protéger seen projet. mais moom laay expliqué sànq sa ñun xoolal soxlatuñu ku nekk ci ginnaaw clavier yi sa waay sama gars wuy leen ma ñun soxlatuñu ku nekk ci ginnaaw clavier yi. ñëw leen ci tali bi wàcc leen ci tali bi ñun ay père de famille lañ comme ñëpp wàcc leen ci tali bi ñu ñu teg suñu bakkan Ousmane Sonko waruñu gën a gore kenn ku si nekk yaa ngi yeewoo sa kër di añ di ndéer di ndëkki amul kenn ku wër sa kër Ousmane Sonko il a tous ses problèmes pour génn këram mais sama yi mais gore leen a gore ñun génn leen ci tali bi gëj leen sama gars yi c'est quoi le problème eh. eh mais wa rahmatullah waaw ni ngeen ko gisee mu ngi noonu tabaarakallaahu ku xalaat yaakaar naa sa bàmmeel sa ñetti fanu bàmmeel am na loo xam ne àdduna du ko jar kon ñuy wax président Macky Sall na dellu ginnaaw bàyyiwaat xel bu baax a baax tabaarakallaahu nga xam ne lii àdduna jaru ko 2011 dañ ko doon xeexal ngir amoon yaakaar ci moom pour changement mais dañoo gis lu gën a pire. kon lii mënul ñàkk mais tamit yaakaar naa benn doomu jàmbur boo xam ne dafa am ay njaboot yor këram nga topp ko depuis deux ans jàpp trois ans di ko fitnaal te kooku dafa am ñoo xam ne ñoo topp si ginnaawam te yow yaa waxoon ne dossier bu ñëw boo xam ne mën na yëngal réew mi mën nga si da nga ciy teg sa loxo te bii yaakaar naa kenn waxatul parce que bii ku ne gis na ni mu demee kon ñi ngi ñaan ngir yàlla ngir jëmmi yonent bi nga dellu ginnaaw te xam ne fii Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk dafa ñaaw kilifa yaa ngi ne ñëpp a ngi fi di ñaan tabaarakallaahu nga xam ne kon lii nag am na loo xam ne yaakaar naa jaru ko te dañuy wax ne maanaam lislaam lépp loo gis xeex moo ko taxawal bañ toll fii jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yaakaar naa xeex moo tax diina ji taxaw parce que dafa am ñoo xam ne dañoo taxawoon ne dëgg du fi am yaa ngi dégg di na lu xaraam nekkoon ci mais bañ bëggee pour defar lépp da yaakaar naa xeex moo ko fi jëlee mu yonente beeg ñi àndaloon ñoo taxawal diina te liñ ko taxawalee mooy xeex te yaakaar naa ku bëgg sa réew demet dem tamit di nga taxaw pour xeex ngir loolu te réew dara du ko doxal lu dul tey jii nga taxaw xeex ko pour mu jóge fi ndax dañu na tey jii xeexal sa réew si jaamu yàlla la bokk dañ koy delloo ca aaya ba aaya ba alquran di wax yaa ngi dégg euh, ñi nga xam ne dañoo génnoon àndaan ak yonent bi di xeex ngir jëmmi yàlla ak yonent bi dee dab leen ci xeex boobu muy xare bi ñoo dañoo dee ci sahid ñooñ kenn du leen réglé seen directement aljana lañ jëm kon nag nga xeexal sa réew tamit dañ koy delloowaat ci aaya boobu yaa ngi dégg kon dañ koy delloo ci aaya boobu ki nga xam ne tey dafa génn ngir xeexal réewam waaye ñi nga gis ñi taxaw di xeexal seen réew xeexaluñ seen bopp ëllëg moo tax ku nekk tey yaa ngi sonn fii ñi ngi fi gis ñu taxaw yëpp ci suba lañ fi ñëw kenn lekkul kenn naanul ngir lan noteel te noteel boobu nag dafay yàgg torop te loolu lañ bëgg mu jugee fi moo tax nit ñi di de chaque jour ñi nekk si lool di si dox waa tabaarakalaa xale yi ngay gis parce que chaque jour ñu ngi génn mais xale yi tamit dafa am ñoo xam ne dañoo dañ a war a appuyer ñan ñoo leen a appuyer mooy mag ñi ñi ngi xeex li ñuy xeex mooy lan mooy li ma wax léegi li ñuy xeex xeexuluñ seen bopp mais dañuy xeex ngir seen njaboot bu ñëwee wala seen ay sët fekk réew mi changé mais ni muy doxee nii dafay gën di chaque jour day gën di metti te loolu lañ bëgg mu jugee fi yaa ngi dégg loolu lañ bëgg mu jugee fi kon ñi nga xam ne dañoo àndoon yonent bi di xeex ngir taxawal diine ñii nag dañuy xeex pour defet seen réew te nee naa leen nag xeex ngir defet seen a ah pour loolu ci jaamu yàlla la bokk de dañ ko bàyyi xel bàyyi xel bu baax a baax Moussa Macky Sall ñu ngi lay ñaan ngir jëm yonent bi nga dellu ginnaaw dellu ginnaaw ngir yàlla ngir jëm yonent bi